Ah, ah, macha allah am na solo yaakaar naa ne dañ lay yeew benn question ak yow rek yaakaar naa ne fi ne nii ñu ngi jëm ci événement ëmm te yaakaar naa ne am na koo xamante bi nii daf la doon ñaanal ci lu bëree bëri dee sax ne la di nga nekk roi des arènes te yàlla dogal na bi ngay nekk roi des arènes fekkewu ko muy sa yaay ja ñu koy ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana te yeexe ñu nekk sa ginnaaw doole la ci lu bëree bëri nga ko doon jàppale aussi tamit guddi ak bëccëg mu am aussi tamit fu mu toll ci yow maman bii nii yaakaar naa ne boo dee génn di bëree doo gis koo ling wala mag yi lay doon wala rakk ji mu jox la dernier ñaan bi ak dernier sarax bi yaakaar naa ne ñi ngi jëm ci événement te amoon nga yéene ci moom seral xolom lan nga may wax ak maman bii nii lan ngay dund gisoo ko sa yenn combat ak nim la manqué waaw di ko ñaanal yàlla xar ko àjjana ñu fa fekk ak ñu ko fee fekk yëpp yal na yàlla jigal seeni i yàlla xare àjjana vraiment ku may manqué la xam nga xam nga suma yaay moom suma xarit la ba pare aussi daf may manqué ci combat mm. c'est vrai quoi parce que àdduna noonu la mm. mais tamit live dañuy xam ne noonu la demee quoi dund moo noonu parce que ñëpp yàlla fi ñu sàkk xam nga yàlla fu ñu sàkk suñu bés bu jotee rek dañuy dem ah mm. waaw suñu bés bu jotee dañuy dem vraiment maa ngi koy ñaanal parce vraiment ku ma ku ma dem ku ma jege la. Mm-hmm. xam nga ba pare tam aussi ku ma dem wétali la quoi moom suma xarit la woon quoi tout le temps mm-hmm. dañu waxtaan xam nga ma nekkoon suma xarit quoi dañu am kaf tout le temps xam ba pare daf ma dem gën a xam nga ibbi sama xel ci wàllu mm-hmm. sunna surtout. ci wàllu jaamu yàlla xam nga ci wàllu lu yàlla suñu boroom xam nga. vraiment daal jàmbaar la quoi maa ngi koy ñaanal mm. yàlla xar ba àjjana mm. ko ñaanal bépp waay daw mm. xam nga yàlla yàlla jege seen i bàkkaar bu baax a doo jeeg saay di wéet di xalam naan bu fi nekkoon tabaski bi nii màkk fii est-ce que doo jeeg saay di wéet di xalam mu lay manqué waaw c'est normal c'est normal parce que nuñ meloon la maak moom fay bi yëpp xam nañ ko xam nga daf may manqué su ma toogee sax wéet des fois dinaa reetaan bu yàgg sama xel dem ci damay xam nga wala ay tabaski jot. xam nga hmm. vraiment da ngay am yëg-yëg c'est normal xam nga. Hmm. parce que tabaski dina am affaire yu lay fàttali. Hmm. surtout tabaski dafa nekk bis bu bu doy waar xam nga. à part loolu tamit aussi daf may manqué. waaye des fois dafay mel ni. xam nga dafay mel ni sax mu ngi waaye ah. voilà exact loolu la quoi dafay mel ni mu ngi sa wet. macha allah yaakaar naa ne ñu ngi ci cëppaandaw gi lan ngay tàggoo ak aussi tamit sa diggante ak borom daaru lañang suma xarit bi. waaw lañang moom bon suma xarit la boo xam ne dañoo bokk ndey bokk baay. waaw maag moom vraiment ànd bu yàgg la. te suma nit la maa koy nuy bu baax di nuyu waa Jurbel yépp yaayam xam nga ak bi yépp di nuyu tamit aussi xarit Raza fa laa waroon dem nii dèjà. <laughs> <laughs> Ah, sama yaasa bi yoo xam ne su bàyyi xam nga yaasi ginaar gu neex. su ma moroon dem añi ji waa nga téye ma fi ah bu defee suma ñaareel bu mere ma suñ ma fasee rek yaa ma tooñ ok mi ngi nii nag moo a téye ah xam nga di nuy xarit Traza bu baax ak waa lan bu baax xam nga di nuy tamit sama goro sama doom Binta Fall xam nga waaw borom borom Paris ah maa la nuyu bu baax di nuyu tamit aussi suma famille. waaw bon jëkkee ko ci Asu Ngom. Mm. tey suma yaay nekk moo fi nekk. Mm. Mm. teg ci Awa Ngom. Mm-hmm. teg ci tamit Pape Ngom mi nga xam ne tamit aussi mooy suñu taabu góor xam nga tey mooy taxaw taxawaay papa kon nu asoon taxawee yaay xam nga di ko nuyu di nuyu Binet xam nga soxnaam xam ma di nuyu sama doomi papa mama mm-hmm. xam euh, mm-hmm. sama mag di nuyu xaadim nag xam ma suma rakk bopp xaadim maa ngi nuyu bu baax a baax. xam nga ku lim da juum. waa Pape di nuyu tamit aussi suma soxna bu baax xam nga xuja maa ngi nuyu bu baax. jàmbaar la xam nga du parce que ñun moom mbër yi nekk ñun dafa métti xam nga dèjà maa ngi nuyu baax du nuyu tamit si suma goro yëpp xam nga du nuyu képp kuy bëggee nuyu Sénégal gi yëpp kilifa diine kilifa aada yëpp xam nga di ak diaspora bi fépp fu ñu nekk rek man ëmma seen maa ngi lay tàllal wax di nuyu du nuyu ñëpp xam nga ñuy bëggee ëmma seen ak ñu bëggewul ëmma seen sax ëmma seen mu ngi leen di nuyu. booy am Modou Ba booy am. <laughs> waaw booy am xam nga voilà exactly xam maa ngi koy nuyu bu baax tamit aussi moom tam vraiment ku ma bëgg la ko sonn ci man la di nuyu tamit saa bogal max waaw suma gars yi nga xam ne vraiment ak Ibou Sy gars yoo xam ni xam nga ay der lañ daal ay lañ ay jàmbaar lañ voilà jàllo tamit suma coach bi jàkko ci jàllo maa nuyu parce que maam dañu yàgg may dem di entraîner foofu aw moom sax paas des daa yëg te xaalisam di ma jox kon jàllo aw ma fayam di nuyu aussi coach si bolo xam nga du nuyu daal ku lim da ngay juum maa ngi nuyu ñëpp nekk turam ak santam jaajëf bi ngi noonu Eumeu seen la borom taay si nga di ko jaajëfal bu baax a baax a baax di ko remercier wax dëgg yàlla ci disponibilité bi parce que temps bi yëpp jël nañ ko yaakaar naa ne émission bi lañ sekkoon ak moom mi ngi noonu ñu def waxtaan boo xamante bi ni yaatu na ñu koy jaajëfal bu baax a baax a baax di nuyu aussi tamit Abdou Tall bu xarañ lool di ko siyaar di ko jox wàccuwaayam Ibrahima Kanté Tarkinda maa ngi koy siyaar bu baax ku ci mel ni Saa Touba le grand marabout maa ngi koy siyaar bu baax a baax di ko jox wàccuwaayam yaakaar naa ne lii la woon tey ci seen émission bi li leen jox di daje ba beneen yoon ci seen làmb TV jërëjëf.